suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam danaa wax ne su ko xaar yi doon jar danaa ko am. ñoo ngi santaat yàlla bu baax ci yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam di wax ne dundub sëriñ bi moom mm, bëri na tey taalibe yu xam ne ñu demee ni sëñ Moussa Touré sëñ Cheikh ni sëñ Ousmane Seck ñëpp dund nañ ak moom dund lu xam ne tabarakallaahu euh, liñ ci wax daanaka mënuñ cee wax lu ko romb ndax dafa doonoon nit ku xam ne suñ borom daf ko bindoon muy nit ku xam ne dafa yëg mbindee fi yàlla yi yëgeen wu xam ne nag jafe na ci jamono man mii da wax ak yow daan nañ takk saret fas wi di dox walla mbaam mi di dox bi yàgg mu ne tekk taxaw ma maa ngi dóor mu ne ma déet bàyyi xëy na dafa am lu mu bëgg benn mu tuur ndox wala mu dem duus wala mu son ko defee yoyu ngant dafa bokkon ci ngant yi nga xam mom daf ko daan nangul daaba ji daan bàyyi xelit nak ci walu dund bi seen dundu jafé na ci jamono ma gis ku ko dundalee jur ndax ñun de ci ñi amé won fas yi ci lañ bok ak nag yi way fas yi nga xamné ñom lañ daan liggéey fas yooyu boo xamaa ne noor jot na bu bojja dugub ji ba pare fas wu ne daf koy xobosal saaku dugub ci ronam ndoxam ak léppam fa la koy fekk ñuy dem indi ndox di ko indi di ko jox waaye bu liggéey jotee nag moom lépp lum lekk ci noor bi dina ko liggéey ci nawet bi liggéey moom bu xasaan jot ndax daan nañ xëy suba takk su ñu tekkee fas yi añ ñëw ñu tekki añ dem nandal leen dikkaat nopp lu tuuti dellu takkaat daan nañ nawet ba nawet wàcc ñun nii duñ gis ganaar ganaar doo ko gis ndax ba ngay xëyee doo fekk ñu yeewu ba ngay wàccee danga fekk ñu tëdd loolu moom bokkoon na ci jikko nit loon ko xam ne it nag ku yëgoon nit ñi la lool ba tax na ku ñëw ba teew ci ronam soo ñibbee boo demee la ngay wax man de man rek la sëriñ bi bëgg man de sëñ bi jant jëflante ak man man de sëñ bi te suñu borom daf ko defaloon ak jagle ko xam ne jafe na ci jamono ndax nit ku teewaat ci kanamam rek dana xam li tax nga teew di tax teew moom dina ko xam moo tax dañ daan toog ba mu yàgg nga dégg mu ne ba dàqante na de ba dàqante na de ba dàqante na de li ma suñ borom wàndee ku ko gisoon ndax bara bam bii tey bam ñu koy wax ak fi mu génne jamono presque mën na fanweeri at fanweeri bu dikkaan bu foofu day taxaw ne tekk dem yàgg mu ne man de tabax bi ma gis fii ñu liggéey ko ba pare ñu fob caabi yi def ci suma loxo ne maa ko moom te tabax bi boo taxawee ci biti da xool sa bopp sax danga nga kiin sa bopp ci biir tabax man de fi ma ko waxee ak fi mu nelawee mat na fanweeri at am na benn bis sax ma ne ko ah fi ab sën la di mune hmm. hmm. ah, ne ma waa jamono ngi ñew da ngeen ko mos a de sën bi jamono ngi ñew da ngeen ko mos a siyaare lolu wax na mako mané ko ah bay fi sën fi nek bobu ay mango ne fi ñu def lu démé ah, ah, ni espèce sën ci pegg mané ko ah bay fi fi sën la di mune ne ma sën bii de jamono ngi ñew ci kanam da ya ngeen ko mos a way nak bobu sax waxul ne fa lay nekk bi mu demee nag bee yaakaaratul boppam boog wala nga xam ne xam na benn bis ñu ànd ñu ñëw ba fi mu ne suma fi bàyyee ko ëllëg ma ne ko ah, booba sax tëddagul su ma fi bàyyee ko ëllëg fekk ñu ngi jëm ci garab mu ne su ma fi bàyyee ko ëllëg nañ ma def fii ndax ma wéttale leen ma ne bàyyi ma dellu ko waxaat la ma ko waxoon bàyyi fii sën la di mu ne waa def leen ma fi rek ma wéttale leen may xalaat nag léegi gas sën bi denc fi sëriñ bi ak nu ñuy def sën bi ma toog di xelaat loolu ndeka xoona alaaji Keba wax ko ko wax na sëñ Modou Fana wax ko ko wax na ko Abdou Ngom wax na ko sëñ Modou Ngom ñun ñii wax nañu ko kenn ku ne ba mu dikkee la mu wax moo da waaw waxoon na ma ko de lii la ñu bokk na ci lim ñu daan wax lekk bu bëri day feebar nit da moytu lekk bu bëri wala soxna si sottal añ bay defer mu ne wool ma ko ñu woo ko mu ñëw mu ne bàyyil xel gan ñi de dikk de ah gan ñi fañ la wax ne gan fa fee ñëw mu ne ah, waaw ñu baleen xel rek ndab loolu gan koy lekk am na benn bis ñu togg ndékki fajar sax la ñu war a am fuñ ñu war a dem ñu taaj ndékki li mu ne ñi ko lekk ñi ko ñi ko bokk dee ak ceeguñ ñi ko bokk dee ak ceeguñ ñu toog tuuti Keba fa yegg ci bàyyi ko cooya ñu toog tuuti Amadou Gaye ci si bàyyi ko Kër Maam Fall ñu toog tuuti bàyyi sagar mii yegg si fa bàyyi ko dagg ndub mu ne waaw kay nañ ndékki keroog ñun ñu ñëw bokk ndekki la moo tax sëriñ bi ak dundam xam naa ñii ñoo ko gën a xam dëgg-dëgg ndax li sëñ Ousmane wax bi muy ñëw ca kër ga jigéen nekku booba yaayi kii moo daan dem ci dugub ja dëbb ci lu bari bu ko soqee def ko cere ñu weer ko cere joju dañ ci lek fukki fan ak juróom wala wer dañ dem ba nga xamne ne bu ñuy sim dañuy baxal ndox mi bam bax ñu dik soti ci cere ji te loolu rek lañ nan lek wa illa lolu ñu jog gaddu suñuy bol dugg ci dekk bi da yalwaan ta bobu alaaji keba ang señ modou fanang señ homar fa ñi mo leen jur kenn ku nekk dana andi sekkal waye nangu sax pour ñu lek ci ñoñu ben ñu lek ci ciéré joju wala ñu dem yalwaani lolu dund nañu dund nañ ko mom ab tir ki bobu mu da wax biscuit bobu mu daan wax bu jëlé biscuit bi ci ay dom cheikh ni lek lek fop ki bi naan motax ben bis bi seigne abdullah dafa ko jox ben leetar moo da jamono ji muy liggéey kamil ñu waa xam naa ma yegg yeggali tuuti rek ñu ñu mu lam def ci leetar bu mooda dama am barab bu may liggéey barab bi nag daaray kaamil laa ko tuddee léegi barab bi it xam na ñu ma wax ne mën nañ koo liggéey booba jili mbaye ngi fi njuga kebe ngi fi ak yeneen i borom alal am na ñu wax ne mën nañ koy liggéey waaye ma séentu ci barab bi njëriñ lu xam ne yéenewu ma ko kenn ma bind nag leetar seexi murid yi kenn ku ne lam am ak lu ay taalibeem am ak lu ci jàmbur yàlla ku ci mën a yalwaani sax mu tekki lettre bi ne ku mën a yalwaani sax demal nga yokk ku am dërëm baax na ko am kilo pepp baax na ku am libar baax na lu waay am def ko ci bu dikkee ma defal leen ko ci bu bu xiwal nga dikkee ñëpp bokk jox ko leetar boobu atam dañ noor a yalwaan maa ngi fàttaliku benn bis ñu xëyee kër Thiendou départ kër Thiendou jëm noonu dem ba dugg kenn ñu dugg xàngale ba waaw biñ duggee xàngale ba ba dikk dëkk bu ñuy wax dëkk Ibou Layen bi kër Birane Famb ñu xag ci benn taalibeem ba bu mag boo xam ne nag la yore da biñ xag mu dal di njëkk lante fekk sëñ bi wax na yoonam ba pare ñu lante dem dëbbu suukar suukar boole ko mbiskit andi boolib soow bu mag teg sotti ca soow dal di yëngal ne lekk leen sëñ bi nek bu ngeen paré fekk ma ci yoon fekk xey nañ da dox da dox da dox ba takku saani suuf ndékki huñ añu keroog biñ déparé ba génn kër biran gor guñu wax sa kumba moo fëgg auto bi ne sofor taxawal ñu ne lum da lum da mu ne taxawal rek yow sofoor bi taxaw mu wacc dik ne ko sëñ bi xam nga luma lay xamal mo def toppeewuñ la gudd ak rëy bu fekkoon gudd ak rëy lañoo topp man nii lañoo topp ñun nit lañ lekk lañ xam suñu taajalati ñam bañu ñu lekk li ngay lekk nag ñun xamuñu ko loolu laa lay yëgal ñu départ dikk ba Ndarame Escale góor gu ñuy bakka xat ne nañ fanaani ci kër ga bi ne déedéet dañuy jaar boowe nga xam ne baa ñu yegsee daaru ay boori deux ci gudd trois bi mu ne dañuy dañuy jàll góor gi sàkkumba dikk ci sofoor bi ne ko jox ma caabi sofoor bi jox ko caabi ñëw def ci poosam biñ ma jaalee ba ma jaal pare ñu ne bisimilah kon nag nañ départ sofoor bi ne a ah, góor gi sàkkumba kat jël na caabi ji mu ne sa góor gi fekk bakkaate ne na fanaan leen fi yóbbu na ndawal gu bëri ca kër toggal ñu ko reer fanaan leen fi dimbali leen ma rek ngeen fanaan fi ñu ne sàkkumba kat jël na caabi ñu ne sàkkumba sëñ bi dik nek ko sa kumba ana ci abiji mu ne ko demuñ de demuñ de fi lañu ñoo tay ñun lek ak naan lañ xam xamuñ bu du lek ak naan yow nak yow keroog fofu lañ fanaan bu bëtt sét kon nak dunduk sëriñ bi mom fa tabarakallaahu alhamdullah ñu ci wax ci lool rek ñi nak ñok ñokam dunduk sëriñ bi dëgg-dëgg ndax ñom ñoko daan sétlu bobu ñun ay tout tank suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daan naa wax ne su ko xaaritoon jar danaa ko am